lii xew tamit faw nit ñi wax ci wax yu leer pour mën ci jël position boo xam ne kenn ku ne ëllëg da nga xam ni ngay doxe nun ay taalubéy murit lañu ay taalubéy murit yoo xam ne eh, sëriñ tubaa rekk lañu gëm jébbalu ci moom wàcc lépp nag topp ko wàcc lépp waaye fa nu jóge eh, dañu fa amuk juddu am fay bokk am fay xarit am ñu ñu ñu ñu xamoon démb am ñu ñu won ginnaaw ñëw fii ci ci kër sëriñ tubaa làqu si fi ngir mucc àddina ak àllaaxira euh, sëriñ tubaa nag laata moo moo moo jot ci ñun ci zaahir dañoo am ndey am baay ami bokk am lu ñu bokkoon ñooña jàpp ne ñëw gi nu ñëw ci yoonu murit jébbalu di taalube euh, ci ak ndof rek lañu ko teg euh, dañoo dof dañoo dof waaye di bàyyi sunu bopp ñàkk personnalité euh, ndax ci ci ci daal ndax yoonu murit nag jaar na ci lu bari jigéen ñi daan nañu wax ni ndax réew mi sax réew mi laay wax daan nañu wax ni bu jëkk Euh, jigéen lum bon bon bon mën a jur am na ma dal wala am murit nit jébbalu na fi ñu tas ab sëyam duma ko nit jébbalu na fi ñu taal ay toolam tas bokk ga génne ko dëkk ba dofu murit bi dëkk ci ci dëkk bee lañ daan wax yoonu murit jafe-jafe yi ak jaar-jaar yi metti na nit ñi topp gi ñu topp Sëriñ Tubaa lu ne daj nañu ko ci mag ñi daj nañu lu ne kuy murit Cheikh Ibra Fall moo la man kuy góor rek seex Ibra Fall moo la man te Cheikh Ibra ba mu ñëwee di liggéeyal Serigne Touba kenn royu ko ci dañ ne tekki di ko xool nit ñi nekk ci njàng miñ doon jàngale ak jàng biñ doon jàng ba yàgg Cheikh Ibra wax sëriñ bi ne ko waxal ñii li nekk ci yow ñu ak ni ñu la war a toppe bi sëriñ bi dajalee daara ji daf leen ne def leen ni Ibra Fall waaye waa daara ji bi ñu wéetee waxtaan sëriñ daam Abdourahman Lo moo jëkk a laaj ne waayam ji muy wax ne nañu def ni moom ana ku xam fu ñu ko moome am ku ne ko kenn moomu ko gor piir la kii kër baayam wàqi la kër ndeyam njare murit bi jëkk a liggéeyal sëriñ tubaa di ko taxanal di ko goral di ko di ko di ko liggéeyal liggéey yoo xam ne jigéen moo ko moo ko doon def dis gor di sëtu laman dëcce fu njóogu ci biir kajoor ñuy wax daabay maam say njaay murid yi di ko sikkar xam ngeen luy daaba daaba mooy mbaam wala aw fas loolu mooy daabay maam say njaay ndax nit ñi ñoo doon wax ne directement mbaam bii la na bu Ndiaye jural euh, Ahmadou Mbàkke mii daabay maam say njaay naqari maam say njaay lool waaye maam say Ndiaye muñ wax a wax lu ne mu daj ko ci ngir doomam bàyyi sëriñ bi te boobu doom ji xam na fi mu jëm ak sëriñ Touba bari na keroog bi bi sëriñ xaw sukkan di ne sëriñ baayam bàyyi góor gi medun kan damaa bëgg a toppi Serigne Touba ci tëmbalkan keroog baay bi da ko doon dumalu te boobu magum jëmm la bu jàng alxuraan ba bind juróom-ñaari kaamil jàng xam-xam yépp ànd ak mbooloo moo xam ne ay jinne lañ baay bi song ko Serigne Touba dox seen diggante ñaata murit ngeen fi xam yoo xam ne lu ne daj nañu ko laata ñu ànd ak sëriñ Touba dóor yi saaga yi te boo demee ñuy saaga sa ndey gi ci kër gi. boo rëccee di murit booba jamono sa baay mooy dëkk di saaga sa ndey bi ci kër gi naa ko sa doom ja dem na dooni murit am murit metti woon na de pour doon ko mag ñi ànd ak sëriñ Touba ñoom sëriñ Balla Faali Jeng ñoom Cheikh Ibra Saar Njaañ ñoom sëriñ ma Masamba Jóob Saam mag ñooñu ñoom sëriñ Bàkki Buso lenn ci bokk yi waay waay maam Thierno Birahim amul lu mu déggul toppe rek lay liggéey du tekki dara du am dara du mujj fenn dem na ba am ñeent fukki at sampul kër sëriñ xaw su dem na ba am ñeent fukki at sampul kër mag ñi topp nañu sëriñ Tuubaa ba yàgg bëggatuñu sax am kër wala am soxna wala ami doom sëriñ bi di dégg lu ne ñu takk ko fii ci géej gi yóbbu ko keroog bi ñuy yóbbu sëriñ Tuubaa ci géej gi amul lu mu déggul sëriñ ma fari kumba lawbe dafa dox rek topp àll bi ba ci àllu baalija bii ci njaasaan di lekk ci meññeenti àll bi di lekk loo xam ne du mënatul jaxasoog nit ñi ba buuk maam buukunte gis ko woolu ko ne ko yow lii ñuy wax ni day nuru nit ci àll bi kon yow la mu ne ko waaw mu ne ko lu la yóbbee sa melo bi mu ne ko amub jaaxle rek ci sama sëriñ mu ne ko yow taalu bi sëriñ bàmba nga mu ne ko waaw loolu sëriñ basiiru bind na ko ci minanul baaxin waxtaanu ma fëri njaay ba ak buukunta buukunta dane ko na nga bég te xam ne dinga nga ak sab sëriñ ma wax la li sabab demub sëriñ bi mu ne ko waaw mu ne ko dafa am benn bis boo xam ne yàlla dafa dajale wàlliw yépp yi nga xam ne ñoo nekk ci jamono ba ñu dajaloo mu ne leen yéenay samay xeej ñu ne ko waaw mu ne leen dama daan am sama yëf di ko maye waaye mayetuma dara lépp lay def benn kolkol di ko jaay ku am njëg ma jaay la lépp ku soxlaati dikk fi yow nee na ñoom ñëpp ñu ne tekk buukunte mi koy nettali nee na fekkee na ko nee na ñu ne tekk ba yàgg nee na ko sëriñ bi jóg taxaw daal di ko loo koy jaayee mu ne ko juróom-ñaari ati bëri yëtu ak juróomi ati bëri yëtu ma wutal la ay noon yoo xam ne man mii maa leen di kattanal boole la ñoom bu ñu la reyee sànk la yaa doon jënd amoo njëkk boo xamante ni nag mucc nga ci ñoom li ma yor lépp ma jox la ko ku soxlaati dikk fi yow nee na sëriñ bi ne ko attan naa ko sunu borom ne ko diis na de mu ne ko attan naa ko nee na ba mu ko waxee ñaari yoon ne ko attan naa ko te sunu borom ne ko diis na nee na man buukunte ma xam ne njëg gi dog na ndax mag mu tol nii yàlla wax la ñaari yoon ne la lii ma lay bëgg a yéen diis na nga ne ko attan naa ko nee na ma xam ne li mu bëgg dana ko am sëriñ bi keroog la ko yàlla fay la mu ko naroon a liggéeyal yépp nee na mu tiim àddina di ko xool di tànn lam bëgg di tànn lam bëgg di tànn lam bëgg ba yàgg nee na man buukunte ma dikk ne ko man de damaa gis ruq bii nga di ko jël rek mel ni amoo ci soxla mun ne ko déedéet sama soxla néewu ci mu ne ko may ma ko mun a ko fabal nee na ko mooy sama bambare yii du la ma liggéeyal yàlla ba jot ci wala dara ka yàlla jox lépp te amu ca soxla moo ma leen jox te loolu ku dem ku dem gàmmu njaasaan xam ko day mel ni marché Mali loolu ba sëriñ tubaa déggee nettali ba ca sëriñ ma bànju njaay da ko ne la ca mat a yéem de mooy la mu ne fekkee na ko te wax na dëgg de boobu fekkee na ko Sëriñ tubaa ànd ak murit yi di xiif ànd ak murit yi di mar ànd ak murit yi di toxu ci suuf yi ba yàgg mu gis suufas Tuubaa suufas Daaru Salaam sanc leen muy suuf yu sell yoo xam ne ba mu leen di sañc boobu jaamu yàlla képp képp képp moo tax mu sanc ko booba nit ñi topp nañ ko ak li ñu yor nee na mu leen di daw di daw li ñu yor yàlla dogal mu jox ko suuf soo xam ne fekk na jolof yem kàdd balloo ji fekk na kajoor agsiwu fi fekk na bawol yem nduloo fekk na saalum agsiwul muy suuf soo xam ne buur musu koo moom dàmmel mosu koo moom teeñ musu koo moom buurub saalum musu koo moom suufas tuubaa kenn musu koo yilif sëriñ Balla Faali nga fa jëkk ruur ab gopp bay ci jumaa ji foofu ñuy wax bépp gi sëriñ tubaa digge fa ne la daa fekk rasulullahi dina ma fi fekk murit yooyu nag jur ay doom doom yoo xam ne amu ci kenn kuñ daan taxaw ci biir mbooloo di la taggal sa baay ci lu dul doon jaamukatu yàlla ak liggéeykatu sëriñ Touba ñooñu biñ fi nekkee doomi sëriñ Touba yi ne fi amul benn doomu sëriñ Touba bu nit ma sa taxaw tiim ko am fitam ne ko yow Abdou Lahad Marema Jaxate sa ndey soxna Jëng Silla libaas mooy ndeyam Amadou Asta Jaxate mooy baayam déedéet déedéet mbir mi mbir mi du njaxate mbir mi du silla mbir mi du loo mbir mi du mbàkke mbir mi du buso mbir mi du kenn benn jëmm la mooy Serigne Touba nee na loxoom bu tuut bi moo ko liggéey Serigne Touba liggéey liggéeyam bu rëy bii nga xam ne yàlla da ko musal ci amal amalgaam loolu ñuy wax jaxase bi sëriñ bi dem ci géej gi Cheikh Ibra man ci góor ñi te booba daa dikk fekk ko ci gaal gi di jooyi sëriñ bee ko dalal bi sëriñ bi di dem ci géej gi booba ku ne yaa ngi def ay pexe ngir sëriñ tubaa bañ a dem waaye booba sëriñ tubaa la mu doon nga xam ne doyoon na sëkk fii képp ku ñu fiy waxtaane ak màggam walla ay darajaam wàlliw la te walliw boobu ba ca gën a rëy mooy xut bu samaan te xut bu samaan ba gën a rëy puritu fas ya demoon xare badar ñoo ko ëpp daraja puritu fas yi ya waxuma saaba yi de fas ya demoon xare badar seen puritu fas ya ñoo gën a rëy walliw yi sëriñ Tuubaa gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkay daaru xudduus ji amatut sago lu dul rekk bëgg a jaxasoo ak moom ab voile bu sew dox seen diggante mu bëgg koo song mu ne ko voile bii dox suma digganteeg yow li muy sew sew sew àddina ak li ci biir xaj na ci boo ko doon dox doo doo doo ëgsi ci man sëriñ bi ci jëmmi boppam xamal ko ne ko nag sama yitte du lii nga ma indil garaatu xut bu samaan bi ak yooyu sama yitte daal mooy mbooloo mi nga àndal mu ñett téeméer ak fukk ak ñett ma bokk ci ñoom ñetti téeméer ak fukk ak ñeenteel bi laa bëgg doon rasulullahi wax na lu ne sëñ Tuubaa découragé na ko de àgg na ci ne ko yow de danga nga maa sopp cofeel gu fés te ma bañ lii nga am nga ñàkk ko ndax ñu bari ñu la jiitu woon gis nañ ma nii nga ma gisee gis ma ñii ma àndal ñu xemmem jataay bii bëgg ko jaay ca lañu am ba ñàkk ko te yow de da nga maa bëgg mbëggeel goo xam ne bëgguma li nga am nga ñàkk ko sëriñ bi ne ko ruux gi de laa sàkkul waaye lépp loo xam ne ruux bi attan na ko jëmm ji àttan na ko sëriñ tubaa jom la demee ci géej gi ngor la demee ci géej gi ak fit sëriñ tubaa nag waxtaaneeguñu ko xam nga lu tax waxtaaneeguñu ko parce que ñi koy waxtaane ñëpp ki ñuy waxtaane demul ci géej gi ki ñuy waxtaane mooy ci bind masaalikul jinaan ki bind jawharu nafis ki bind nahjul xadaayil xaaj kooku ndar la yem kooku xutbu samaan la ndar la yem ki jóge ndar dem ci géej gi def ci juróom-ñaari at ñëw dem gànnaar yi def juróomi at kooku ay mayam ak màggam ak tedd ngaam ak darajaam ci yàlla kenn tuddagu ko ndax ba léegi amul benn jamono boo xam ne jëmmu doomu aadama mas naa feeñ ci kaw suuf ñu tuddee ko xaadimu rasuul sëriñ tubaab bi mu nee seq jëm ci géej gi rekk ca la doon xaadimu rasul rasul moo jiitu xaadima ci sës rëkk kooku kenn waxtaanee ko kenn waxagul li mu doon kiy waxtaane sëriñ tubaa di gaaral jëm ci ma Masamba wala Mademba xamul sëriñ Touba sëriñ tubaa mi ngi tàggook nit ñi ci géej gi bi muy dem ci géej gi boobu la tàggoog nit ñi ak paliwaliw yeeg yooyu yëpp boobu bokkatul ci ñoom mu dem ci géej gi def fa juróom-ñaari at juróomi at yu jëkk yi kenn xamul fu sëñ Touba ne Cheikh Ibrahima Fall ci diplomatie ba ak yeewute ga ak mën a lijjanti ga Cheikh Ibrahima Fall moo jaxasoo tubaab yi di leen xamal ne sama waa ji li ngeen di njortu ci moom amul li ngeen di wax ci moom nekkul li ngeen bëgg ci moom ak lim bëgg bokkul kii jotewul ak yéen dara ba jàppale Carpo jàppale karpo karpo falu meeru Saint-Louis ba noppi nag door koo jox information te Cheikh Ibra daan na leen ger di leen jox ay alal di leen neexal ngir bëgg gim bëgg sëñ Touba te lu mu liggéey jox ko maam Thierno Birahim Cheikh Ibrahima Fall ak maam nu biraayim gisuma ñaar ñu leen gën a doon ay complice ci yoonu murit gisuma ñaar ñu leen gën a déggoo te wolof day wax ne ñaar ñu déggoo ñoo raw ab mbas ñaar ñu déggoo ñooñu ñoo sàmm yoonu murit ba sëriñ Touba dellu si ci jàmm sëriñ bi def ci géej gi juróomi ak seex Ibra Fall door jot ab leetar ñetti leetar benn moom benn borom daarul mooti euh, sëriñ tubaa di jot ay xéewal yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci Cheikh Ibra Fall mu di ko jëfandikoo ndax Cheikh Ibra juróomi at yi mu nekk ci géej gi ke Serigne Touba kenn du la ni diwa ko doon fóotal diwa ko doon toggal diwa ko doon yónnee nangam diwa ko doon defal nangam nangam kenn féetewul sëriñ Touba fenn ba mu liggéey ba ñu dellu si ñëw ay jaxase ak i rambaaj tax mu jëlaat yoonu gànnaar bii dem ci naar yi ak seen web seen daraja yu rëy ya mu semmal leen. sëriñ tubaa bi mu dellusee nag toog njaareem am fi fukki at ak juróom sañc tubaa di ko xemmem di ko bëgg di ko sopp te mënu faa dem loo wax ba jëmee tubaa rek xolam sedd te mënu faa dem yàlla ne ko lii nga gën a bëgg dëkk bi nga gën a bëgg laa lay jëkk a xañ bokk na ci nattu yi dëkk bi nga gën a bëgg moom laay yàlla lay lay jëkk a xañ interdit de séjour à Touba jusqu'à sa mort mu sañc lu ko nit ñi di fa liggéey di fa jaamu yàlla Touba nekk dëkk boo xam ne ni mu tàngee nga xam ne koo xam ne bakkan ak caaxaan képp la ñor doo fa sa war a yendu sëriñ bi dëkkal fa njabootam nit ñi xamaguñu li xew ñuy maslaa ba mbooloo mi ñëw nit ñi ak booba sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou taluñu dara ndax jumaa ji nekk ci ba jumaa ji egg sëriñ Abdoul Ahad nag ñëw gaynde ak njaloor gii ñuy wax Cheikh Abdoul Ahad ubaydu rabbi wa ibnu cheikh yi moom lay signé bi mu dikkee moom cheikh abdul ahad keroog ba mu waxee ne li sëriñ tubaa tere yépp dama koy tere ci dëkk bi bind ab listam wax ko ba àggal te da ka ko jox këyit kenn gisu ko cheikh moustapha bachir dafa jóg taxaw ne ko yaay sëriñ tubaa cheikh abdul ahad ndax ka seere wax ne lii de ba ko sëriñ tubaa di wax cheikh abdul ahad mii fekkewu ko kon day sëriñ Touba moo tax Cheikh Abdoul Ahad di xeex indi gendarmerie Touba ñu ne ko gendarmerie bi mu ne ay saay-saay ñoo dugg ci dëkk bi gendarmerie yi wër leen fee génnee xaj yi mu ne ay xaj daw ba dugg Touba ay xaj dàq leen toj marché bi lutise ko defar armeel yi defar armeelu baax ya sumb université bi lu ngeen fi gis nit ñi di ko liggéeyal sëriñ Touba ci jamono ji ñu toll ci sumbu Cheikh Abdoul ahat Mbacke yi la murit nag di jafe ba tey ba tey am na ñoo xam ne li ñuy daj ngir doon murit ku dul sans boroom xamu ko waaye bu ngeen duggee ci càggante nit ñi di leen tagg ak di leen woy nii géwél ngeen defe ne dinañu neex sunuy bokk di ko dégg ngeen di pasar pasare xaalis di fo mel ni ñun lañu won ginnaaw dañ koo dëgmal ci yéen dara jaru ko bu fekkee nag ay waxi ceddolaak ay tagganteeg ay juddu bu rëy benn sëriñ mësta doon boroomub dëkk ci senegaal bu du sëñ Touba benn sëriñ bu masa moom ab suuf ci senegaal te buur buur Jolof joxu ko wala dammeelu Kayoor joxu ko wala teeñu Bawol joxu ko walla nga dem ca ca ca ca Saalum jotee ko fa musul am musul am benn sëriñ toju fi dëkk sañc ko di fa buur di di di fa bummi déedéet amul mennum Serigne Touba ci Sénégal moo mës a def loolu ba mu ko defee moom Cheikhul Khadim ñuy dox ba jëmmi jamono doomam ju tedd jooju di Cheikh Saliou Mbacké laaj titre foncier pour dëkk bi ba mu ko laajee Abdou juuf daf ko ne boo ma la joxee titre foncier kon Tiwaawan dinañu ma ko laaj Njaasaan laaj ma ko keneen laaj ma ko Tiwaawan ci suufas Kajoor la ne damel yee ko moom Njaasaan ci Kajoor la ne damel yee ko moom yeneen dëkk yi Bawol la ne feneen ak feneen moo tax ku xamulu réew wërta jiite réew sëriñ saaliwu lijjanti ba ñu jox ko wenn këyit woo xam ne moo moom Touba ni ko Cheikh Mat Bamba bindee mu def ci këyit ga turu sëñ Touba ñu koy signé ñun ba nuy jébbulu amul lu nu sunuy mbokk waxul amul lu nu déggul du nu ay dofan te ñàkkuñu fayda te judduwuñu juddu yu tuuti man jën mag fay laa tudd sama baay 1919 la juddu duma doomi gone ñetti nit ak sama baay ñoo dox sama diggante ak waasi la fay buuru siin bi nga xam ne nguuru na téeméeri at fàppuwaagaan biram jaaxeer lañu may taggee doomi buur laa doomi buur laa sama néegu ndey bu mi jilaas moo ñu meññ sàndig yii ci njoob booy dem booy dem jaxaw sunuy maam lañu ay doomi buur lañu ay germi lañu ñu sànni ko fële ca xaj ñëw jébbalu di murit boo sukkee ñu ne la waroo sukk man sama ndey mas na maa ma mbàkki ji ngay wuyoo dangaa war wuyoo santub kenn ma ne ko ah lu ku ma neex danaa wuyoo santam sunuy sunuy xarit yi ñu àndaloon démb bërki démb nga xam ne ay étudiants la woon université nekk de brillants étudiants jàng ba am ay baccalauréat yoo xam ne scientifique la xëy sànni lépp ñëw Touba mel ni ay dof topp sëñ bi rek sëriñ Saaliwu Mbàkke rek bëgg ko sopp ko nit ñi ne oh, kooku dof na sëriñoo sëriñ sunuy ndey ak sunuy bàyyi taxaw fa ngir seet ba xam ndax lii ñu dal jàmm la ñi naan leen kii dañ koo liggéey ak ma nga Tuubaa di doxi tànku ne nag seen doom ji dana torox keneen ak keneen noonu ba léegi ci réew mi am na ñu ñu fiy dóor ndax ay murit lañu am na ñu ñu fiy génnee seeni kër ndax ay murit lañu am na ñu ñu fiy toroxal ndax ay murit lañu kon nag sagal leen murit yi ngeen bàyyi caaxaan yii am na ci loo xam ne ku ko rusu la def kenn mu dula ko rus a wax yaa ngi dégg bàyyi leen bu ngeen xewlee ngeen dajaloo ñu di leen gaydel xujjukumba ak sira ak daaro ak di leen jaxateeg ak di leen sillaak di leen buusoog di leen mbàkke dama ne wenn tagga ne te mooy sëriñ Touba nañu leen wax ne seen baay bii leen meññ bu dee Cheikh Abdoul Ahad ñaar fukki isib alxuraanam ya nañu leen wax njàmbaaram ga fit wa gaynde ga sancug daaru salaam bokke barga sancug belel sancug kàbb gay yooyu ñooy njàmbaaru sëñ Abdoul Ahad foofu lañ koy taggee waaye du ay Cheikh Abdoul Ahad Marema Jaxate lu ruslu la Cheikh Abdoul Ahad ni mu toll ngeen di wax ay Cheikh Abdoul Ahad Marema Jaxate li Serigne Fallou daj ci ndindi daj ko ci Touba Bogo daj ko ci Aliye daj ko ci jumaa ji daj ko ci murid yi amul lu ngeen koy taggee lu dul Fallou Awa Bousso ah li Cheikh Saliou Mbacké daj sañc xel ko muy cinquante mille hectares mu def fa fukki junniy dongo di leen woddu di leen dundal di leen faj di def ci ñoom mbirum yàlla yor njël loo xam ne ñetti tonn la bis bu set boroom njëlu ñetti ton kan moo ko mas a am ci Sénégal amul ku mas a sañ ci njël boo xam ne ñetti tonu ceeb lañuy togg kooku moo loolu moo dig njàmbaaram ñay jàng alxuraan ci daaraam di mokkal di wàcce di bind loolu moo dig njàmbaaram Sëriñ Tubaa dafa ne li mu donn mooy alxuraan ak xaddiis du alal ju bari du du leneen lu muy woomal kanzil kitaabi wal xadis wal adab ngeen di joxalante ay xaalis di ko tiitaroo sëriñ tubaa daawul laal xaalis tegal foofu la daan wax ku leen ku leen bégal ku ne xanaa da leen a jox alquran alquran day moom la sëriñ tubaa bégee moom képp moom képp la daan nangu ci ay loxoom naka la nit di bégalee ci xaalis xaalis day dara du tus xaalis du dara góor jigéen yii ci Monaco ñoo leen ëpp alal fuuf boo demoon rali rali léegi léegi rali rali Monte bi da ngay gis lu ëpp 900 Ferrari taxaw te Ferrari mi ngi jar 100000 euros yéen amu leen ay oto amu leen ay kër amu leen xaalis amu leen dara kenn ci yéen dawalul oto buy jar 100000 euros wala 200000 euros. bu leen leen tiitaroo basin yi ñuy sol ci Sénégal nit ñi di ko màggal ay darab la ay darab ak i nàpp lañuy lal yoo xam ne fii ci Autriche jarul tus dama ni mbir mi du yëre yu bari du xaalis bu bari du dàll yu bari du oto yu bari Sëriñ Tuubaa mbirum yàlla la mbirum yàlla la daraja la ab sëriñ mooy koo xam ne boo jaaxlee dëkk fi moom wax ko sag jaaxle mu wax yàlla lee lu yàlla def dara jëy sëriñ daal ak màggam ku leen bëgg a tagg na leen wax ngeen wax yàlla lu mu def loolooy garaaw sëriñ Abdoulaye jur la sëriñ Fallou jur la sëñ Saliou jur la sëriñ Mourtala jur la sëriñ Soy bu jur la nga xam ne yow loo wax yàlla da koo war a def tout de loolu mooy ndamul sëriñ sag jaamu yàlla gu metti sag liggéeyal sëriñ tubaa njàmbaaruk fas yéene raw sa baay yi waaye bu ngeen duggee ci ay taggante ay juddu vous perdez votre temps duñ leen gëm ci loolu te it du tee ñu gëm sëriñ Touba de gis nga lii ñuy kaas di ko naqarlu barke sëriñ Saliou yéen ñëpp bu ngeen àndoon di mandi ba tëbbi ci jumaa ji du tee ñu gëm sëñ tubaa te du tee sax ñu leen di jox addee teg ci du tee ñu leen di bëgg di leen sopp di leen wormaal yéen bu ngeen rusul deret yi ñun rus nañ ko bu ngeen sagalul deret yi fu ñu leen gis sagal deret ji. bàyyi leen caaxaan yi lii ma def sëriñ bay Jaxate daan na ko def Serigne Touba daan na ko dàggi te booba sëriñ Touba xam nga ni tollul nu kenn ñemee di ko naa dàggi naa la ci nangam ak ci nangam nañu góorlu te sagal yoonu murit te xam ne Serigne Saliou daana wax ne lislaam bi daa am ñu ñu ko bokkal réew mi dañ fee ne ne fi ak sunuy nawle ay mbaam ne ci dëkk bi yor ay Snapchat yor ay fii nit ñi di leen woo buñ leen woowee nga toog bi ci ñii ñii ñu lay tagg ngay funki ñun dañoo faale loolu ñun ñun dañoo faale ku ñuy tagg muy funki yéen bu ngeen ñëwee fii fii waa yow gis nga am na loo xam ne ay caaxaan la tey caaxaan baaxul ñun li ñu gëmee Serigne Touba. ak liñ ko soppeeg liñ ko ragaleeg liñ ko toppee ak liñ koy wóolu wóolu wóolu wóolu lépp mbirum yàlla la dara du ci mbir àddina lépp mbirum yàlla la sëriñ tubaa ci boppam képp koo xam ne gëmee nga ko lu dul yàlla yaa ngi koy yàq du tee mën na la koo defal waaye doo ko saf sëriñ tubaay moo wax malaka ni dunya wa uxra samadu maa indahu lixtaarahu muhammadu gis nga Serigne Touba ba mu jógee ba ni mu ñu ko tàmbalee gis ba biñ koy noppee gis mësta teggi bëtam yii ci yàlla ak yonent bi keroog ba sëñ Touba woowee Cheikh Ibrahima Fall ne ko Ibra Fall may naa la lu sa bët yi tege yaa ko moom mu ne ko yàlla na nga ma dimbali ba sama bët yi dootu tege lu dul sa jëmm ji Serigne Abdou Lahad nee na jóg rek ne jàkk sëriñ Touba dama koo jógte nee na kilo la féete fépp te la nga yëkkati bëgg ko ko jox sax ci moom la bàyyi ko mënoo koo fayee lu dul dàkk lam bëgg sëriñ tubaa nee na ñetti cant laa am sama cantug làmmiñ mooy di tagg yàlla ak yonent bi di leen tudd di leen woy sama cantug jëmm mooy du ma def dara lu naqari yàlla ak yonent bi te dinaa saxal sama cër yépp ci jaamu yàlla ak yonent bi sama cantug xol mooy fuggloonte ak xéewal yi nga xam ne moom la ma sama borom defal ba duñu dugg sama xol lépp loo xam ne yàlla may na ko sëñ tubaa sëñ tubaa nangu na ko waaye dugalu ko ci biir xolam da koo nangu teg ko noonu fonk ko wormaal ko waaye xolu sëñ tubaa sëñ bi nee na sama xol bi ñaar képp a ci ne yàlla ak yonent bi keneen moo leen ñetteel mooy alquran lii mooy li xew sëriñ bi rek a fi ne te lii murit yëpp a ngi koy gis mi ñu ngi koy dégg te ñaaw na bu amee ñoo xam ne tey jii lu mat cent mille personnes bu ñu yeewoo seen xel dina dem ci jënn jëmm ñu dem ubbi xool connerie ak yëfi dof ya mu def te loola dëkk Touba dara gënu ko ñaaw nit ñi dajaloo di màggalu sëriñ Abdul Ahad bi da lu ne gis naa ko ci gisuma ci kenn ku yor ab jukki ñëpp ay téléphone lan yor di di snap seen bopp sagal ngeen sëriñ Abdul Ahad lool sagal ngeen ko lool ki nga xam foo ko fekk day bokk kaamiilam yéen ñëpp kenn ku ne ngay soloo ko simmi di tiitaru di cakaayu bàyyi leen lii waay lii seer yi rekk ko dese seer yi rekk rekk rekk ñoo ko dese barke sëriñ saaliw te ñun ay nandite lan ndakaaru lan juddoo man ñaari tali HLM waagu ñaay dëg gëbla googu dama ko fréquenté falaa defee sama ndaw dara góndiwu ma man basin góndiwu ma oto góndiwu kër góndiwu ma France góndiwuma Italie góndiwuma Espagne góndiwuma Suisse góndiwuma Amérique demaguma fa waaye duma gondi benn dëkk rekk laa bëgg mooy Touba moo dee ci sama xol bi te Serigne Touba rek laa bëgg kon yéen bu leen bu leen ñu jéem a góndee loolu di mottali ko ay oto di wàcc di non non non de tout ça yéen sol leen perkaal te yor alquran yor xasida jaamu yàlla ba mel ni ngeen war a mel barke Serigne Saliou ñu bëgg leen comme nu ñuy duñ leen sax gëmee sëriñ saaliw mi ma sukk jébbalu man dama koo gëmee basin cheikh dul Bachir ibnu cheikh saaliw dama koo gëmee basin wala étage kër sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëriñ saaliw ay sàkketa fane ak i seng waaye moo ma gënal ku yàlla bind ngay dox dama koo gëm ndax dafa ma wóor ne ci li sëriñ Tuubaa bëgg képp ci lay dox ma doyloo ko yaakaar ko jàpp ko loolu mooy dëgg waaye bu ngeen ñu jaayee àddina du jar gone yi gone murit yi ñii Sacré-Cœur lañu juddoo ñii Almadies ñii juddoo Mermoz ñii juddoo Fann Résidence di ay doomi gor di ay doomi nandite ñii ay doomi ministre lañu nekk ci dëkk bi cakaay ba doyal tux lu ne naan lu ne jaxasoo fu ne xëy bàyyi lépp ñëw ca sëñ Tuubaa yaakaar fi ak defaru buñ leen fekkee ngeen di tëgg ay bool yéen ay bool ngeen di tëgg ki bongo maa leen dàq a fecc fuuf man leer na ma ne ku yeewoo Tuubaa ku ne maa la dàq a fecc man gonek séeréer laa bëri naa fecc naa mbilim fecc naa gitaar fecc naa lu ne kon nag am na loo xam ne bu ngeen ko dee def du ñu neex du ñu saf duñ leen duñ leen ci teg fenn duñ leen ci nawloo bàyyi leen ko teel leen ko bàyyi bàyyi leen àddina bi ngeen daw jëm parce que ñun fa leen jóge jëm si fii yéen da ngeen da ngeen bëgg a weesaloog ñun ñun ñu jógee foofu foofu baaxul ñuy ñëw ci sëñ Touba yéen ngeen jóge ci sëñ Touba di dem bu leen ko def nag toog leen nag yaaram toog leen fi sëñ Bamba foofaa baax foofa moo neex tey neex ëllëg mooy saadatu daaray nii waaye mooy lu mat a xàmmee alali sëñ tubaa ji ak xéwalam yii du lu ñuy foowee dem leen ci sañcaan yi dem leen umul xuraa dem leen kër gol dem leen dem leen wër leen jaar leen yoonu njurul bi xool leen foofu dee leen dem ci taalibe sëñ Tuubaa yooyu di leen dimbalee luñ mën a dundee ndax ñooñu dañoo bàyyi seen i dëkki ndey ak seeni i dëkki bàyyi ak seen tool ya ñëw sanc si Tuubaa boroom kër yi nga xam ne dañuy gàddu peel gàddu pikk dem di wëri depanse ba ngoon jot ñu jàdd ci benn ngénte wala ci benn të dëj daal di daal di daal di tibb ab bool yóbbu seen kër ñoo ñoo mat dimbali tiitaru tiitaru tiitaru ëllëg biir bàmmeel ya fa la coow li ne biir bàmmeel ya fa la coow li ne nekkul fii yéen man leen ñu ci kaw jëf ju baax man leen ñu ci gën a bëgg yàlla man leen ñu ci gën a nangoo jaamu yàlla man leen ñu ci gën a topp yàlla man leen ñu ci am yërmandi ci dimbali nit ñi am nañu soxla ndimbal biir Tuubaa lool lool lool fo daray àddina jaru ko doomu kilifa du fo yéen la tax seen deret tedd du ay ay ay doomi buur ngeen de du ngeen ay doomi buur du ngeen ay doomi garmi ay doomi wàlliwu ngeen wilaaya moo leen teral ka wilaaya teral nag dangay sax ci li neex yàlla ku ceddoo teral dangay ngay dee ci li naqari yàlla nii la demee kon bu ngeen fi noppee di taggante léeg-léeg sax ngeen dugal ci buur yi ay birima ak fu mu yendu yendoo ab doomu sëriñ nga tiim ko ndax birima maamam la nga ne ko diw sa maam la fu mu yendu yendu faa naan waaye sa nag dëgg-dëgg yow boo yow boo doon dund ak birima di fexe ba mu bàyyi naan ñu di la ko taggee am na ñoo xam ne dañ leen di saaga ngeen leen di jox seen alal te caaxaan faaxe bàyyi leen li ngeen di def ndax neexuñu neexul sëñ tubaa itam ndax sëñ tubaa noonu na sama taalibey rek laa am lii nag maa koy wax man taalibeb Cheikh Saliou Mbacke taalibe Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Saliou maa koy wax ci kaw ñépp dégg ko ndax nëpp nëppal beeg raay raayal bi day bëgg a soof te lu ñu mën a faj la ci saa si bu ngeen fexe woon ba Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké dégg tey jii ne yéen a ngi tëggi boole ki bungu ci Touba barke sëriñ saaliwu Mbacké du yendu te fajuwul bool ak bongo kenn du ko xumbalalee barabu sëñ Touba sëriñ Touba alquran ak xasaayid moom lañ koy bégalee xasa moom lañ koy bégalee wa in kuntu an ardil madinati zana yi la wax te kooka nag xasida yi day neex ci moom ba mu far ñëw kataba allahu tabaraka wa taala anna baytillahi l aram tarfaul malaikatuhu ngeen ngeen ngeen ngeen di di di tiitaru ay ndangam di wax yoo xam ni mais non dëgg-dëgg nag changer leen daal de comportement bàyyi leen yëfu dof yooyu parce que ñun fa lañ jóge dara nekku fa barke Serigne Saliou xam nga fu muy mujj non samay jamono maa mënoon a tëx maa a fecc nangam ak nangam yooyu rek mujj gi ko la romb nga jéppi ko boo yow da nga soof koo yónni mu bañ yow sa ndey fii nangam mag sa yaay fecc nañ kese laaj leen kurulan yii laaj leen ñi fi jaar topp àddina ba ba ñuy dee ñu leen di defal ay téléthon nangam ak nangam bàmmeel bu ñuy siyaare Lat Joor amu ko Birima amu ko euh, Samba Lawbe amu ko bàmmeel bu ñuy siyaare ku ko am ca maam ya sëñ Tuubaa tax Serigne Touba tax ñuy siyaare bàmmeeru Maam Mor Anta Sali baayam Serigne Touba tax ñu dem defariwaat bàmmeelu maaram sëriñ Touba tax ñu defar balla ay saak saajo ci yoonu Mbàkke bi sëriñ Touba tax ñuy ziyaare bàmmeel Serigne Touba rekk a fi ne billaahi wallaahi tallaahi Serigne Touba rekk a fi ne képp koo xam ne nag continuer nga ci façon bii di nga dajeeg taalibi Sëñ Touba yii ñu jëflanteeg yow loo xam ne daray àddina du ko jar tayit nag gis nga bu fekkee comme ñun yéen rek lan am di ngeen jub par ndax ñun moom duñ leen seetaan ci lii ngeen bëgg cee continuer màggal gu fi amati barke Serigne Saliou Mbacke da ngeen di jàng alxuraan di jàng xasida noppiloo géwél yi ngeen xam ne ay caaxaan képp lañ leen di wax sëñ kenn du ko màggalale ay ay ay waxit waxi kasaw kasaw màggalu sëñ blaat daaru salaam bokki barga la màggalu sëñ blaat la màggalu sëñ Touba la ak sax ci li nekk ci li neex Serigne Touba lii mooy wax ji asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.